Euh, monsieur le ministre du travail Samba si di ñëw ci rapport bi effectivement euh, rapport bi reflété na les débats en commission euh, dafa am loo xam ne dama ko dégg sur la presse ma bëggoon ko déjà préciser que dañu ne pendant la commission les députés de Yewwi on voté pour ce qui est complètement faux les députés de Yewwi se sont abstenus su ma ñëwee nag ci texte bi c'était une précision monsieur le président que je devais faire c'est important su ma ñëwee ci texte bi euh, dañu ne amoon na question yu ma laajoon gisuma ko ci rapport bi laaj na am na foo xam ne à la page deux fu ñu ne le conseil constitutionnel a été irrégulièrement composé j'avais demandé des précisions sur cette composition irrégulière du conseil constitutionnel étant donné que les sept membres du conseil constitutionnel ont été tous nommés par Macky Sall par décret moom moo leen nommé donc le Macky Sall moo leen nommé par décret donc les sept membres du conseil constitutionnel ñu laajte woon pourquoi ñu ne cette composition est irrégulière j'avais demandé cette question au président moom Mamadou Lamine Thiam leneen li dañu ne woon dañu bëggoon une des précisions sur les faisceaux d'indices concordants laaj yu ñu ay preuves effectivement commission d'enquête parlementaire bi su saytoo moo war a ay preuves mais faisceaux d'indices concordants yooyu ñu bind ci texte bi ñu jiiñ ko les juges Cheikh Tidiane Coulibaly ak Cheikh Ndoye dañ ci bëggoon quand ay précision sur les faisceaux d'indices concordants te loolu amuñu ci tontu beneen bi dañu bëggoon ay précisions dañu ne juges yooyu dañu lënkaloo avec certains candidats certains candidats au pluriel nañu bind ñu laaj certains candidats yooyu ñan lañ loolu tamit jotuñu cee am tontu euh, beneen bi am nañu phrase bu ñu bind. très clairement, il y un projet de confiscation du pouvoir par Amadouba, le Premier ministre en fonction, qui est également le candidat de Benno Bokk Yaakaar yaakaar naa mooy seen candidat du ma dégg ngeen di ko tudd du dégg ngeen di ko cité mais dama am yaakaar mooy seen candidat waaw donc comme moom moom ngeen wax léegi dafa am ay député député APR ak député Benno Bokk Yaakaar ñoom dañu ne dañuy voter résolution bi ci commission parce que nee nañ la ñu bëgg a setal seen deru candidat mais yow soo amee candidat balaa ngaa setal deram da nga koy défendre loolu wax naa ko en commission balaa ngaa ne da ngay setal deram mais défendre ko d'abord loolu wax naa ko en commission te souligner wuñ ko ci rapport bi leneen lu ma bëgg également ñu souligner ci rapport bi bu ñu nekkee ci débat yi en commission euh, am na ñoo xam ne dañ ne résolution bi résolution bi jar na jar na su fekkee ni commission d'enquête bi enquêté na ah soit ñu arrêté processus bi électoral soit ñu def un euh, des élections te gisuma ci rapport bi fenn fu ñu ne ah résolution bi suñu enquête ñu defee enquête dañuy arrêté processus bi wala report le moo report n'est pas wax nañ ko en commission le mot arrêt du processus électoral n'est pas wax nañ ko en commission ça reflète le rapport doit refléter les débats monsieur euh, honorable Ablaye Diagne effectivement je vous félicite pour la qualité du rapport mais le le terme report mu ñu wax en commission war na feeñ ci rapport bi le terme arrêt du processus électoral bu ñu wax en commission war na feeñ ci rapport bi loolu rek laa doon wax donc leneen lu ma bëgg a euh, euh, terminer par rapport également à ce rapport ak cette commission d'enquête parlementaire pour leeral rek parce que je pense que am na solo on est à un moment important euh, dañu ne woon également ya y a une contradiction entre le titre bu ñu ne le projet de résolution visant la constitution d'une commission d'enquête parlementaire éclaircir les conditions de l'élimination de Karim Wade mais bu ñu demee ci article premier bi effectivement dañu ne woon ni il est créé une commission d'enquête parlementaire portant sur le processus électoral effectivement président Lamine Thiam tontu na ci tontu bi luñ ci jàpp mooy processus électoral moo ngi commencé sa inscription ya ouverture des listes inscription sur les listes électorales révision ñu dem ensuite ba ci proclamation définitive des résultats ñu jàpp ni le champ d'application de cette commission d'enquête est trop large ñu war a ko préciser loolu nañu ñaanoon et on réitère tout notre soutien et notre solidarité au candidat Karim Wade par rapport à la sélection ba nga xam ne Macky Sall moom lay def le seul problème c'est le président Macky Sall qui offre une sélection donc moo la parole est à notre collègue Cheikh Abdou je rappelle qu'on est à la phase des observations de forme